la fin ils ont eu gain de cause mhm. parce que élan bi waroon am ñëpp jàppale ko loolu mujjul am surtout euh, voilà au plus haut sommet mhm. voilà léegi nag ñoom ñoo am seen seen voilà man sax jéem nañ ma ci jéem a dugal mais j'ai refusé mhm. voilà certains moo contacté ils ont contacté d'autres mais moi j'ai refusé euh, Cheikh l'avenir de de Amadou Ba parce qu'on a eu des échos que euh, am na ci des leaders yu nekk au sein de l'APR ñu ngi waxtaan ngir euh, taxawal une partie politique bi nga xamante ni dafay taxaw ci ci opposition bi est-ce que tey jàpp nga ne son avenir c'est c'est c'est c'est de quitter créer parti politique am wala c'est c'est de maintenir dans l'APR fexe incarner li nga xamante ni moom mooy leadership au au sein euh, man moom Amadou Ba dama jàpp ne su dee APR da ko jël jiital ko dooleel ko il peut rester au niveau de l'APR donc euh, bu dee loolu mën na nekk bu dee président Macky Sall dina. dina ko sponsoriser par rapport avec tous ces manigances yi jot oui mais tu sais dans dans tous les partis nag je vais te dire une chose dans tous les partis politiques y des manigances ah moom ku nekk ce sont les intérêts parfois aussi y a un choc d'ambition man bëgg naa yow bëgg nga keneen bëgg na en un moment donné man la ñu jël naturellement y a des gens qui sont pas très fair play parfois danañu user de moyens yi nga xamante ni pour gàllankoor la bañ nga dem léegi nag moom Amadou Ba est-ce que président Macky Sall et euh, et, et ses camarades de l'APR vont lui donner, n'est-ce pas, euh, euh, la force de pouvoir continuer, n'est-ce pas, à représenter le parti parce que gëmatuma Amadou Ba dellu ginnaaw doon militant simple loolu c'est serait se tirer une balle dans les pieds mu bàyyi politique wala mu defi leneen moo gën mais je pense que c'est quelqu'un qui qui qui a un avenir, n'est-ce pas, si politique sénégalaise bi donc il faut bu mënul affirmer au sein de l'APR il faudra qu'il trouve n'est-ce pas un autre moyen génn dem diriger son parti comme euh, sunu invité ni mu ko fàttalikee président Macky Sall en 2008 quand il s'est plus senti en odeur de sainteté au niveau du PDS il a pris ses responsabilités à moment donné Amadou Ba devra prendre ses responsabilités bu demee nag il peut euh, politique bul wax kenn kenn mënul wax euh, parce que président Macky Sall en 2008 sénégalais boo yeewoon ne le président Macky Sall day doon président en 2012 doo ko gëm euh, récemment récemment encore une fois euh, euh, voilà bi bi donc ça aujourd'hui météo moom ñi koy def sax dañuy am problème quoi parce que boo ne kii mooy falu parfois tu te trompes Idrissa Seck gis nañ ko fii si su doon moom mooy su doon parce que Idi Idi quatrième président dégg nañ ko fii amoon na doolee bi yaakaaroon mais yàlla yàlla waxul waaw donc du ko après du coup gis nañ ne nu mu nu mu demee. Mhm. donc man dama jàpp Amadou Ba il faudra soit qu'il prenne ses responsabilités waa APR mu waxtaan ak ñoom ñu déggoo mu des APR mais ñu jox ko lengey mhm. wala bu nekkee mënul nekk mu génn mu affirmé wu lu mu am jël. Parce que aussi il y a d'autres élections à part l'élection présidentielle. il y a l'élection les, les élections législatives yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni ce sera le moment pour aussi le parti am ay militants yu bees et cetera dérouler un programme peut-être dina ko permettre aussi qu'il va incarner peut-être la vraie opposition par rapport au régime de Bassirou Diomaye Faye parce que tey euh, suñu bàyyee les choses à l'État si ces gens-là ne prennent pas leur responsabilité le président Bassirou Diomaye Faye il va dérouler donc euh, parce que amul kenn ku ku ku taxaw ci kanamam ku ku am euh, poigne bi nga xamante ni ñu ngi koy xaar en tant que opposant pour jàkkaarloog moom di ko indil ay contradictions parfois sinon loolu su amul il va dérouler pendant les cinq ans il va aller encore à une élection présidentielle bon je sais pas s'il va gagner mais les Sénégalais vont choisir euh, monsieur a da a dem bokk yaakaar parce que gis nañu euh, longévité bi nga xam ne amoon nañ ko moment boobu ñu nekkoon au pouvoir actuellement ils ne sont plus au pouvoir est-ce que tey jàpp nga ne euh, cette coalition va encore durer. waaw ouais, c'est vrai que coalition bi moom xam naa ne euh, mën na bañ a day maanaam ñi ko constitué yëpp mën nañ bañ a continuer nekk ci parce que maa ngi gis sax benn parti dama koy bañ tudd rek ak parce que dama leen di bañ a may gauche parce que parti boobu tamit. parti Xusma ñàkk la mm-hmm. yoo xam ne bu soo dem élection. bon di wane ne def na communiqué bokkatul Benno Bokk Yaakaar. bon parti socialiste aussi gis naa ne aussi ñoom tey war nañ am lël. donc certainement leen wax seen avenir. Mm-hmm. donc mais tey li am solo mooy man parti yi àndoon ak euh, Benno Bokk Yaakaar ak mouvement yi man dama leen di remercier. Mm-hmm. parce que vraiment ils ont été à la hauteur ils ont été sincères dans la euh, dans dans la collaboration. ci ànd bi vraiment ils ont été sunu gars yi kay ñoo amoon ñuy yàq mhm. mais ñoom vraiment ils n'ont pas douté. seen gars yi ñu nekk biir affaire. ñu am nekk biir affaire mooy li ñu doon wax léegi. Mhm. mais ñoom amul kenn. Mhm. te pourtant mënoon leen ko def. way ñoom mënoon leen wut ay candidats seen biir wala dem ànd ak ñeneen mais ils sont restés donc ñoom vraiment gàcce ngalaama. léegi nag su ma sañoon euh, APR ñëppay nekk benn su ma sañoon bennoo bi tamit le camp présidentiel bi ñu amoon. ñëppay nekk benn mais ànd aussi noonu la. Mhm. à un certain moment na am ñu dem fii dem fële certainement bu kenn génnee def créer parti dina am ñu dem ànd ak moom. mais l' essentiel mooy opposition bi ne nu rester ne nu dëgër. parce que il faut une bonne opposition forte. comme ni nga ko waxee. loolu mooy tax pouvoir bi liggéey. pouvoir bi si boppam sax dafa soxla. une opposition bi fi nekkoon fii nii c'était une opposition. Ah très radicale très très très courageuse combative. tout à fait c'est ça dafa baax ci réew mi baax ci ñi. ñi ñi ñi ñiy diriger. Mm-hmm. donc l'opposition doit s'organiser tey li ma gëm mooy ku bokkul Pastef ku bokkuloon ci coalition Diomaye ci opposition nga nekk mais voilà comme ñoom li ñu doon créer ay cadres. Mm-hmm. ay yeeyu askan bi ay ay F24 mm-hmm. ay yu kenn xamul mais dina toll benn moment mais dañuy xeex dañuy créer cadre te boobaa dina dem ba nga xam ne su fekkee soxla sénégalais yi rek la mais société civile dañ ciy gis seen bopp bu ko defee ñu ñëw. M23 loolu moo ko indiwoon woon. c'est la la société civile e les partis benn les partis politiques te loolu ñun ñoo ko dund. absolument voilà donc affaire bi loolu la Sénégal bu ñu la ñi nekk ci régime bi dañ leen jox pour ñu doxal. Mhm. mais boo nekkee ci opposition aussi dañ la wax pour nga surveiller ñoom bu ñu defee lu baax. bon bu la neexee nga applaudir ñoom ils nous ont jamais applaudi mais bu ñu de bu ñu jàddee mais nga nga wan leen yoon nga leen jàdd ngeen ba pare lii mooy solution bi lii ngeen waroon def mm-hmm. pour di proposer une opposition aussi une opposition doit proposer mm-hmm. mais ñoom daanaka duñu woon proposer duñ fi proposer dara wala luñ fi wax rek mu ngi leen di rattraper mm-hmm. tey ñu ngi lay jaajëfal bu baax bu ah. tàggoo ak euh, mbokk internet yi waaw kontaan naa loolu ñëw. Mhm. vraiment fi dinaa fi sawar loolu ñëwaat. merci fi ñu gën a mën a am temps incha allah waaw Cheikh Cheikh tamit vraiment. <laughs> jàmbaar la merci et puis euh, j'ai parce que am na débat contradictoire man ak moom. ak yooyu donc loolu am na solo. parce que dafa meloon rek ma toog ak koo xam ne mhm. ci pouvoir bi la nekk. Mhm. donc euh, vraiment. Euh, loolu loolu moo ci am solo. parce que avec le journaliste. avec le chroniqueur. ci ak invité bi dafa war a am débat contradictoire sinon rek on peut pas être bien sûr, bien sûr. dans une même kii mmh. tey xam naa ne su fi ku bokk ci régime toogoon day nekk débat contradictoire da ngay mel na ku ku far opposition ku xaw a contre waaw voilà merci waaw donc maa lay jaajëfal di jaajëfal sunu sunu invité vraiment waxtaan bi amoon na solo mm-hmm. te j'espère que su sunu internet di dinañ si jëriñu ñun ñi suñu bopp ñu jëriñu si voilà di voilà di la jaajëfal encore une fois di joxe dig daje ba voilà prochaine émission ko bu baax moom Cheikh Kane moom moo ñu saa su nekk ci plus euh, le grand chroniqueur ni ma koy waxee saa su nekk. <laughs> di jaajëfal également Ahmed Suzanne Camara nekk responsable politique bu APR euh, fervent militant de de moom la ñu amoon mbégte dalal ko ci li nga xamante moom moo di plateau plus jaajëfal mbokk internet yi ñuy topp saa su nekk mbokk da ci Ibrahima Pleya ak ñi nga xamante ni c'est des internautes fidèles Télé Sénégal jaajëfal lundi ci beneen numéro ak beneen gan di là portez-vous bien